يالا دا فا ديف بيسامي بيس بو ني مو ام لوم تا ديف نين ني نك ام التي نيك تراتا اك الاربا وا يالا لوموي ديف تي تلاتا دا نكو ديف تي الاربا دا نكو ديف تي التي دي دا نكو ديف تي بنين بيس dafa bégloo kër gi ci la bokk te journaliste yi xam nañ ko ndax su fekkee ne képp ku oote yàlla moo la ooteloo da koo yëgul wala ràññiwoo ko waaye noo koy xamee bu nuy ji bu nuy ji bu ku ne mën ngaa woote waaye bu nit ñi wuyjee du yow yàlla mais am na ñoo xam ne pare nañoo jël essence sotti ko seen bopp taal ko pour ñu ne diw sàngam te ñetti nit rek sax duñ ko yëg waaye nag bu dee yàlla moo ne uy ji leen diw nga xam ne kooku bu doon jamono yonent yi it yàlla dina ko yónni ci nit ñi bu dul jamono yonent yàlla suñu boroom def ko ba sëqatee sax ñi ñi ni eskay jafe la waaye bu ko yàlla defee lay yomb jamono ji ñu nekk indifférence moo gën a bari tey nag bàyyi ñu sa ngi nii ñoom ñaar ñoo maase am nañ fi ay mag yu góor yu jigéen ndax man tey maa ngi sama 75 ans kon ki nga xam ne yàlla mu ko def ci 46 ans kooku doom rek la mën a nekk ci kër gi waxtaan nañu itam ci biir ndax doo am gan mu ñëw nga ñëw wax jaaxal ko walla mu wax jaaxal la man mi yàgg di liggéey ak chef d'état yi chef d'état yi li nga bu ñu def some bu ñu nee déwén nañu yore sommet bi conclusion yi moom dañuy njëkk a bind tey li ñuy war a wax fekk un an ba ci arab ba ci virgule dañ koy di chef d'état yi ñuy corriger lii na dañ ñii na dugg parce que mbetteel baaxul

idéologie du patriotisme nous n'avons que le Sénégal qui est notre berceau et qui un jour sera notre tombeau. Nous ne pouvons pas cultiver ailleurs. Nous ne pouvons pas nous épanouir ailleurs. Donc tout ce qui est bon pour la patrie est bon pour les patriotes. Nous ne serons jamais communistes. En tout cas, dans nos comportements. Nous ne serons jamais, libéraux. Dans nos comportements. Parce que le libéral, le libéral se sent le frère du libéral là où il est.

mu ne ma kuy nelaw bay gént ni dangaa yaxoor dangaa ñuul mais loo xam ne boo nelawee fàtte ko rek bokkul ci yow mu ne waaye loo nelaw nelaw bu seddee yaa ngi xëcc kii bi parce que yëng ne sedd na da nga yëng ne tàng waaye doo yëg ne weex nga doo yëg ne ñuul nga loolu amul yëg-yëg moo am réew mi li ñu yëg bu tawee danañ ko yëg bu maralee danañ ko yëg te loolu fii rek lañ koy yéege fii rek mooy maral ñu xiif taw taw bu bëri ñu suur kon loolu jarta xeeb baat boobu patriotisme boobu dama cee xalaat ay at maa ngi ni toog ak yéen Ablaye Wade toog na fii seede li may wax yépp man maa ko jox xalaatul na créer parti boppam bàyyi fi PS fa la newoon walaa ko fekk maa ànd ak moom ñu dem ba Mogadishu Senghor jox ñu pour récépissé téléphoné Jean Collin pour ñu jël suñu récépissé kooku mooy parti bi nga xam ne njëkk naa nekk ki ko xalaat sos ko fii ñu toll ñoom it ñun maag Sidi Lamine sama rak toll nañ fa dóor nañu dàqe tëj nañ ñu xeel nañu façon bu ne gis nañ ko amul benn façon bu boo xam ne danañ ko def opposant te ñun jaaruñu ci amul ba fii ñu toll gars yi li ñu ñeme ñeme ba tey kenn ñemewu la jël pra euh, drapeau France cos cos almet te def nañ ko ci ci kanam Mitterrand yi lañ ko defee. Hmm. te fa mu safee. Hmm. Mitterrand président Mitterrand mi ngi nii ñaar téeméeri journaliste su ko ñu ñu taal drapeau bi mu jooy yuux il fallait nag ñun ñu am ko ñu relayer nag. patriotisme déedéet ci la bok l'islam sax ci le la commencé d'accord loy wax nga door ko wax démocratie ci démocratie loyauté que l'opposition l'opposition di pour mon Je opposer mënul jamais taxaw ci négation du ne ndax un ngi ne di xaar mais maintenant, ci la wax ci Je qui Sall fait nañ ko te loolu ku koy wax booy wut dof teggi ko koy wax loolu teggi ko ndax Moussa ca kër Firaaw na la yaroo te tu tereew ko nekk am Moussa ne Moussa yaroo ci kër Firaaw na tere koo nekk Moussa premier premier point le président Macky Sall est une institution nous reconnaissons les institutions et nous les respectons mais nous ne serons jamais d'accord sur notre ennemi à tous la corruption di gérer budget Nous naa fi un ak moom ñu général de Gaulle le 26 septembre 1958 maa organisé voyage ba man mi am 12 ans boobu 12 ans là. Si ci bi ma 12 ans teg ñaari weer ci la fi jógee may jox sama yaay ak samay rakk toujours maa depuis 40 ans mosumaa yoreel nit juróomi dërëm du nit du banque du société du kenn petit ci biti ginaar bi man lu mu am duma amul wor sama wa keur yi wor dañuy wor ñeen fukki fan di côté teeroo weeru koor donc li nga xamné mom mo am importance man wax na ni musuma musuma jël am ben mètre carré bo xamné état mom ko musul am fi mu ki ñak ñak yow xam nga ndax gouvernement mën naa jël nangu suufu bu jox ko nitam de foofu ko am lébu yi la neex man maa ngi am foofu 1975 boobu la am ci laa fa def jënd ci lébu yi defar teg yooyu yëpp pour wane ne nit ki mën nga koo xam waaye lu nit wax sa kanam jabar ki doom loolu mooy la jërëjëf kii nag sama doom la ba ma ko waxee ne leen kenn du ko laal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 jekk nga ci ndax si sa mbokk la yow rek la bëgg loolu yëpp taxul am jabar alxayri mën naa jege lool mën naa sori lool waaye du wax dëgg yàlla Tabaski bés la wax na ñaar ñi ñooy daje xar ak paaka hmm. waaye nag xar mi li ñuy jëkk jënd ci paaka bi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 danaa o président Macky Sall mi nga xam ne